ñaari ndaama la ñu ñoo tolloo taxawaay Papa Sow sokku na attention ña ngay dóorante jàppante dara amagul Papa Sow junior ak Soxor Kele waaw Soxor Kele moom gisaguñu Kele bu metti boo def attention Soxor Kele daw na yooru jàpp na Papa Sow reculé ràcc Papa Sow reculé nga Papa Soxor Kele ngay door ci suuf Soxor Kele nga door ci suuf attention oh. attention soxor jël na soxor kële ah oh. soxor kële daan na soxor kële daan soxor kële daan na xale bi quatre appui la def soxor kële daan na Papa Sow junior oh la la la la soxor kële daan Papa Sow junior premier combat de la soirée. soxor kële xool ma fii mbër mbër taxawal lan moo xew. lan moo xew. sant yàlla bu baax. taxawal wax xew. taxawal soxor xew. wax nañu oh. émission bi la. wax nañu wax nañu. Oh. mbër noonu. ñu bàyyi ko nopp lu tuuti. ñu ngi koy tekkil ba jàjji